xam ngeen nag jamono ji école ubbi na. nekk na nag ubbite bu métti métti métti suñu reporter doxantu nañu fa école 6 école 12 fépp wàllu Pikine am na école yoo xam ñu ngi tëmb si kaw ndox mi euh, gouvernement bi fi nekk ndax ñu ngi gëstu mbirum njàngale mi yàlla rekk a xam. boo xoolee atum 2012 ba léegi président Sall jëlee nguur yi ba léegi yenn école yi ñu nekk si ay jafe-jafe tey ñu ngi jàkkaarloog Ahmadou Dieng di parent d'élèves monsieur Dieng tey lépp lépp ñuy waxtaan tey mooy mbirum éducation xam nag yéen ay parents d'élèves ngeen tey noo gisee tey ubbite tey jàng tey est-ce que réew mel ni Sénégal. Euh, ñun bu doon suñu sago en tant que parent d'élève hmm. euh, ubbite ubbite jàng mu doon une réalité. Hmm. mais malheureusement euh, mënut a mënagul a nekk une réalité. parce que maa ngi nii sama école doom laa jógee hmm. bon troisième lay def. bon am na BFM dañ ko waroon orienté et jusqu'à maintenant orientation bi génnagul bon ñoo xamante ni bii seen orientation génnagul xamuñu fan lañ leen yóbbu xamuñu ban lycée lañ leen yóbbu nan la ñu bëggee ubbee tey jàngatee kon loolu mënut a nekk mm-hmm. bon waaye nag ñun en tant que parent d'élève mm-hmm. euh, bu doon suñu sago effectivement bés bu ñu ubbee bés boobu la ñuy la ñuy commencé jàng mm-hmm. euh, monsieur Guèye beneen question ma lay laajee si mbirum toujours mbirum mbirum éducation nationale mm-hmm. léegi sëñ tey grève yi bari nañu. Mm-hmm. Euh, Covid baa ngi fii juróom ñe juróom-ñaari weer ba léegi juróom presque juróom-ñetti weer mm-hmm. xale yi gëj nañu jàngi tey noo gisee situation sanitaire dans les écoles. Euh, ça nous euh, en tant que parents d'élèves. Euh, parce que dañoo xam dañoo xaw am tuuti njaxare. ak tuuti tiitaange. Euh, ci sunuy doom dañuy ñaan yàlla. ak ñaan aussi kilifa yi nga xamante ne bii ñoo yore éducation bi ñu jël toutes les dispositions nécessaires bon pour que xale yi mun a jàng dans de bonnes conditions. Mm-hmm. Euh, à savoir bon les conditions d'hygiène d'abord les conditions d'hygiène d'abord mm-hmm. c'est très important mm-hmm. maa ngi dégg souvent à la radio ñuy wax y a plusieurs écoles qui n'ont pas de toilettes bon qui n'ont pas de robinet bon avec bu loolu. bu ànd ak maladie bii. bon kooku mm. vraiment. Mm. c'est une bombe à retardement. Mm-hmm. donc ñu ngi ñaan euh, les autorités académiques. Mm-hmm. bon ñu def tout. Mm-hmm. bon pour équiper. école yi nga xamante ne bii amuñu ay bon ñu def fa ay toilettes ñoo xamante ne bii amuñu ay ndox. amuñu robinet amuñu dara. bon ñu xëccal ñu xëccal leen robinet. loolu je crois que c'est la moindre des choses. noo gisee situation bi si biir njàng bi. tey euh, da ngay dem yenn douane yi yenn diwaan euh, ndox maa ngi taa euh, xale yaa ngi tiit jaaxle mënatuñ de passer seen examen dans très bonnes conditions xoolal tey lu mel ni BFM am chance CM de bac xale yu bari tey am nañu seen lijaase mu ñu leen orienté lan mooy sa sa sa sa xalaat si mbir jaaxle parents d'élèves jaaxle nañu le bien le plus précieux d'un parent d'un parent c'est sa progéniture hmm. sont ses enfants nos enfants moom lañu am lu gën a cher ci ñun bon ci suñu suuf lañ daggee donc bu doon suñu sago ñu nekk dans de bonnes condition bon ministère de l'éducation jouer rôle am bon ku jàng am sa diplôme mm-hmm. am foo mën a foo mën a jafan waaw mais ñun loolu moom suñu suñu si principal mm-hmm. mooy que suñu doom yi mm-hmm. nañ leen nañu am un système éducatif bien huilé boo xamante ne bii euh, dañ leen di jël en charge tu vois jàngal leen yar leen yor leen bon euh, loolu mooy vraiment sunu souhait mais malheureusement mm-hmm. euh, tel n'est pas mm-hmm. bon dans beaucoup de euh, départements mm-hmm. dans beaucoup de régions jusqu'à aujourd'hui bon y a certaines écoles yoo xamante ne bii ndox maa nga fa bon ndox mi demagul bon ñii ils sont pas encore orientés jotuñu seen orientation bon ñii il y a manque de professeurs ñii il y un manque d'encadrement ainsi de suite. Mm-hmm. bon je crois que bon nguur gi war na jël si ci ay priorité am. Mm-hmm. éducation bokk ci. Mm-hmm. bon parce que nous sommes en train de préparer le Sénégal de demain bon et le Sénégal de demain ce sont nos enfants d'aujourd'hui euh, donc damay ñaax nguur gi rek bon mu gën a dolli. tu vois jël éducation. mu bokk ci priorité yu priorité am. <laughs> voilà. monsieur Ahmadou Dieng benn question ma lay posé xam nga ne tey euh, mbëkk mi mu ngi gën di jéggi dayoo xale yaa ngi dee si géej gi bon ñu naan a y' a certains jeunes yoo xam ne tey yenn waajur ñuy pousse seen doom dem à étranger. Mm-hmm. tey nekk na mbir moo xam ni askan bi ñu koy ñaawu. Mm-hmm. maa ngi dégg ba benn benn xale bu am fukki at ak ñeent fukki at ak ñeent. Mm-hmm. papa ji moo ko mujj passé dem bitim réew. tey pour yow euh, c' est la faute à li jëm si crime clandestin cette euh, monsieur Sakho euh, posé nga ma question bu euh, bu nga xamante ni bi tey moo nekk actualité. actualité waaw man ñu bëri ñu ngi yedd. Mm-hmm. ñuy jël gaal yi. Mm-hmm. waaye man duma leen yedd lu tax duma leen yedd mooy xale bu góor bu am kattan. Mm-hmm. bon xëy na defoon na de militaire libéré ñii jàng nañ ba troisième génn ñii jàng nañ ba am bac génn ñii jàng nañ ba am maîtrise génn kenn amu ci liggéey nga nekk ci situation boobu yeewu suba teel gis sa yaay ak sa papa dem ci ñoom pour laaj leen ndékki loo ndékki. loolu cent franc boo jëndee mburu loolu gor mënu ko gor mënu ko te xale yi ci loolu lañuy dund ci situation yooyu la dund kon tey man duma leen yedd bu ñu jëlee gaal di dem immigration nag fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi yaakaar moo leen yóbbu du xaru ku wax ne dañoo xaru yaa ngi tooñ uti li ñuy uti euh, lu ñu dundale seen wàll seen seen seen njaboot ak yaakaar nag bu ñu demee mm-hmm. loolu danañ ko fa am loolu moo leen yóbbu waaye kenn du dem di xaru ci mm-hmm. man je suis contre ñuy wax ne xale yi dañuy xaru mm-hmm. euh, nangam nangam anduloo si non non bon xale yi du ma leen encouragé pour ñu def loolu waaye ku ko ci def danaa la comprendre voilà kooku moo doon Ahmadou Dieng di parent d'élève ñoo ko déggandoo junj na indiwaat na ñuy gën a tànxaafu parents yi ñu góorgóorlu woo nguur nguur gi ñu jël seen i motuwaay mën a jàppale xale yi. suñu suñu mbirum éducation nekk na loo xam ni day gën di jéggi dayoo gis ngeen tey école yi bare ñu am ñoo xam ni amuñu jumtuwaay am ñoo xam ni tey amuñu fay jàngalekat métti na askan bi euh, ki nga xam ne mooy euh, le président de la république ak nguuram war nañu mën a gëstu askan bi ñu jàppale euh, Sénégal yi ak citoyen monsieur Dieng junj na problème immigration clandestine nee na nag du du xaru boo xoolee nag yenn yi.